salaamaaleykum suñu bokk internet yu Dakar Net ginnaaw bu ñu leen nuyoo kontaan bu baax a baax ci ànd ak bi ngeen di ànd ak ñun Ousin ngeen di àndal ci seen émission bi nga xamante ni euh, mi ngi tudd euh, Guissé ak Guissé ak nag tey dañuy waxtaan ki nga xamante ni dafay yëngu ci wàllu zikrullah ndax xam ngeen ni période bii ñu nekk ñi nga xamante ni dañuy euh, yëngu ci domaine boobu noonu ak ñi nga xamante ni dañuy tagg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom jamono jii ñu toll noonu mën naa ni seen période la alors actualité nag euh, dinañu obligé ñu wax ak moom mais loolu dinañ ko waxtaanee ci kanam mais balaa ñuy sori dañu koy bàyyi mu nuyoog mbokk internet yi Dakar net ñu ñëw ci yaatal bi Aliou Afia ñu ngi lay ziar. aoujubillah bismillah inna waliyallah jërëjëfe Serigne Touba ki jëra am maam Cheikh Ibrahima Fall Lambaal Mouridina gàcce nga laa ma Serigne Afia Mbacke Fallilu jokko jël Cheikh Ahmadou Lamine Baara Mbacke Afia est-ce que Serigne Touba maa ngi ziare mbokku taalibe di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké sunu borom yàggal ko fi mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal Serigne Cheikh Jëmm Fall yàlla na sunu borom wéral ko guddal fanam di ñaanal njabootu Serigne Touba geex maam Cheikh Ibrahima mbokk taalibe yëpp euh, di jël nuyoo di ko teg ci sama yaay mu jàllaleel ma ko famille bi yëpp euh, di nuyu sama soxna ak waa këram tey nuyu waa Dakar net mm-hmm. di leen ziyaare bu baax a baax. di nuyu waa Baabul Muridina di leen ñaanal tawféex di ziyaare mbokk jullit yëpp ci weer bu sell mi nga xam ne jullit ñi namoon nañ ko mm-hmm. te bu ñëwee duñu yàqamti mu gaaw a dem kon nag ziar baa ngi noonu. Mm-hmm. mais dañu faral di wax nag naan Baay Faal yi eh, du woor. Mm-hmm. ñenn ñi ñi nga xamante ni ñu naan Baay Foo ñu naan Baay Faal <laughs> yow yaa ngi ci koor gi walla. waa man moom maa ngi ci koor gi. maa ngi ci koor gi so bi ma leen bàyyi fii léegi dama julli ji woon moo tax ma xaw yéex a wàcc mm-hmm. waaw man maa ngi ci koor gi te man moom budul koor sax moom dama dama tàmm di woor mm-hmm. ndaxte sama sama sëriñ Mbàkke la sant mm-hmm. sëñ Afiya Mbàkke Fàllilu mooy sama wasila te waxtu julli daanu ko dagg daanu ko rëcc te it koor daaw ko foowe ba ni mu fi jógee xalifaam bi nekk fi muy sëriñ Baara Mbàkke yàlla na fi yàgg daa fonk waxtu julli te fonk weeru koor kon donc man lu ma def lu dul woor ak julli defaguma lu ma war. <laughs> macha allah alors euh, li ñuy li ñuy ubbee waxtaan mooy Aliou. Mhm. bon xaw nañ la gëj a gis tuuti ah. bon mun naa ne yàgg na yàggul sa single bi nga mujjee génne yaa ngi wax ci Serigne Touba digganteem ak alxuraan. ci màggal gi ci màggal gi. Mhm. donc boo ñu doon ñëwaatal ci morceau boobu noonu lañ la ñu mën a wax. waaw parce que dama ne Serigne Touba bégal na yóneen ba te alxuraan nee na yow yaay soppeem ba te ku ne xam ne nii xadimu rasul sallallahu alayhi wa teg tur di ko denneleex rasul ku dul Serigne Touba yàlla wàcceegu la te la mu jëfal yonent bi moo ko may garaatu rasul ba liggéey ga mu liggéeyal yàlla donn ko rasulullaay moo ko may garaatu rasul ba kon bégal bégal yonent bi moom moom defe naa ne romb na ko li tax li waral alxuraan nee na yaay soppeem ba nag daf ko teg fu mu fu mu tegul kenn ak fu ko kenn tegul fi sëñ Touba teg alxuraan tegu fa kenn te it fi ko sëñ Touba teg kenn tegu fa alxuraan mm-hmm. néew ma kenn tegul fenn alxuraan waaye teg boo gis dañoo su jal boo gis dañoo sutante mm-hmm. te defe naa ne jalu sëñ Touba ci tegum alxuraan dafa gën a kawe lépp ndaxte ki daan am lal woy naa ko ci biir woy bi naa ko danga nga daan am lal mm-hmm. jébbal ko alxuraan tey yaa ko sancal kër muy daaray kaamil ndax sëñ Tuubaa ci jamonoom daanul fanaan ci lalam lal ba da ko daan décorer ba mu ba mu yànj suy ci ay parfum yu yu ëpp doole ci àddina teg ci kaamil alxuraan yi ñu ciy fanaan moom muy tëdd ci suuf tey loolu la ko yàlla fayee tey jii muy daaree kaamil gi mm-hmm. jël kër gu ne léng tabax ko ba mu àgg mm-hmm. ku ne yaakaar ni kan moo ca war a dëkk ku ne naan kan moo cay dëkk mu dëkkal ci alxuraan loolu moo waral woy woobu béggal nga yonent ba te alxuraan nee na yow yaay soppeem ba. Mhm. même si biir waay bi sax yaa ngi ciy sargal Serigne Mountakha Mbacké Bassirou ndaxte période période coronavirus bi xam nga dañu doon xalaat nag màggal gi dina am wala du mhm. ñu lay déglu si biir sax ko ci yaa ko ci sargal. Mhm. taxawaay bi Serigne Mountakha am ci eh, li fi nga xamante ni moom moo jot am si réew mi ak eh, fi jotoon am. ak manifestation yooyu. taxawaay Serigne Mountakha Mbacké Bassirou bi nan nga ci nan nga ko gisee en tant que talibé. waaw xam nga sëñ Mountakha yàlla na sunu borom yàggal ko kooku kooku sagu mburit la sëñ Muntaxa sagu mburit la teg ci it mu doon koo xamante ni euh, dañ ko bëgg sëñ Muntaxa dañ ko dañ sëñ dañ ko dañ ko dama ko bëgg lool te it ay jëfam rek lañ ko waxal waxalu guñ ko fii lu mu jëful te sëñ taxaa dafa boole ak lu mbàkkeex paaleen muy muy muy doon mbàkke mbàkke pare ne doonu taalibe da nangu takk takk laxasaayam doonu Baay Faal ndax ku ne gis na sëñ Muntaxa xalifa yi yim tarbiya yëpp ni mu leen daan tarbiya tey ba ba ba ba doon xalifa sëñ Tuubaa te ku ne xam na ni it bi màggal gi di ñëw événement yu bari annulé nañ leen yu bari gàmmu sax dañ ko annulé ci ci ci ci ci ci wàllu dañ ko annulé gaa yi seen pexe bu sotti woon màggal Tuubaa du am ndax boobooy benn événement bi leen bi leen teewoon pour ñu mën a téye Sénégal. mais mais pexe boobu ñan ñan ñoo wundu pexe boobu. mais nguur état wu Sénégal la wala kon ku dul mais état Sénégal la ñoom rek ñoo fi nekkoon di def di dindi. da mm-hmm. leen lenn France ñemewul ñëw fi naan ñu màggal lu fi am. dootu ko def kon ci at mi. mais ak ak état bi li mu si gagné yëpp. màggal ah. li fi dugg ci revenu. comme comme mais est-ce li mu gagné ci corona bi ëpp li laaj la nag. waaw mu ngi noonu. ak 1000 milliards yi ñu wax ak mu ngi noonu mais est-ce que li muy gagné ci corona bi ëppul li muy gagné ci màggal gi. Hmm. foofu la problème bi nekk. mais tamit du ci màggal rek lay gagné. Hmm. ñaata événement moo fi ñëw ci muy ci muy gagné mu andile ko mais lan moo ko jaral. Hmm. corona la ñu wax. waa léegi nag mun Mountakha bañ na ne màggal gi day am. parce que bu leen bu leen bu leen bu leen bàyyi woon màggal gi bañ a am. ah musiba mën naa xew de. ndax sëñ bi bis bii kat du bisum kenn sëñ tubaa ko tàmmalil boppam. moo ko tàmbalil boppam fii ci njaareem daan berneel nit ñi ci ay loxoy boppam bis boobu kat defe naa ak tawat warta mën a tax ñu koy puus ndax liggéeyal sëñ tubaa ci bisam bokk na ci liy saafara jàngoro ci biir réew yaa ngi dégg mm-hmm. liggéeyal sëñ Tuubaa ci bisam bokk na ci liy saafara jàngoro ci biim réew ci biir réew kon gars yi seen waxtaan gi waxtaan gi bu sotti woon màggal mm-hmm. Tuubaa annulé wu mm-hmm. ndax 1895 bi ñu ne kenn du julli. Mhm. Sëñ Tuubaa rek ko julli woon. le 20 mars. 20 mars 2020. Mhm. bi ñu ne kenn du julli Sëñ Tuubaa rek ko julli. Mhm. am déet. <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu kon bisu Sëñ Tuubaa mënuñu ko fee jële euh, bon en xam nga euh, ku tedd ki euh, moom Cheikh Ibrahima Fall ci ci lu ñu lu ñu lu ñu dégg ci weeru koor la dayanoog Sëñ Tuubaa. vingtième jour ci weeru bi la liggéey ba tàmbali. Mm-hmm. jamono ñu toll ñu ci woor ñu ngi ci koor gi. Mm-hmm. vingtième jour bi dëgg la ñëwaguñ. Mm-hmm. mais ja diggante boobu en tant que taalibe en tant que baay Fall. lan nga ciy wax ci weer bu tell bi ci diggante Serigne euh, euh, Serigne Touba ak euh, maam Cheikh Ibrahima Fall. waaw xam nga ñaar fukki fan ci weeru koor bisim dibeer la bis mbir ma wóor. maanaam maam Cheikh Ibrahima Fall. xëy na dañoo tàmm bis boobu rek mu fës. Hmm. waaye maam Cheikh Ibrahima mosul wàcc liggéeyal Sëñ Tuubaa xëy na bisum gise gi rek. gise gi la moo ko waral ci saayir ci saayir ci saayir. Hmm. waaye maam Cheikh Ibrahima mosul wàcc mosul wàcc Sëñ hmm. li may wax mooy maanaam buñ euh, xitma gi bu ñu ko yemale ci bisum ñaar fukki fan bi kese. bu jàllee nañu mel ne ñoo ngi ci ñaar fukki fan yi di liggéey. en tant que Baye Fall ndaxte nii ku ne xam na ni euh, yoonu Baye Fall tax na fu weeru koor ñëwatee ku ne sanc sa mbana. waaw hmm. ah, loolu mais loolu tamit gars yi ñu ngi si ñenn ñi tamit ñu ngi naan bon donte macha allah. Hmm. mais par exemple boo bëggee dimbali nit. Hmm. gënul tamit nga jëkkati sa alal dimbali nit sans pour autant nit ki mën naa wàcc tey par exemple yor benn téeméer. nga topp ma topp ma ba ma jox la loo xamante ni sa amaana jox naa la ko xëy na kersa. ba du ma am lu ma ndogoo donte yow boo ko récupéré da koy jox Euh, sans pour autant nga téye sa leket di di di di <coughs> jël sa alal togg say xéwal. waaw togg say xéwal. berne. berne baax na lool. Mhm. waaye yu ba day yem ci yow kese. te ab mburit mhm. dafa yaatu. bu la toppee di la laaj addiyee di la jox. Mhm. da lay leer ni bëgg laa dimbalee tax mu la koy laaj. ndax leer na la ni yow comme nee nga léegi da koy jox nit ñi. kon xam nga ne li muy laaj sa ndimbal lay doon. tey su ma jëndoon sama sama sama. cin jëf ji daal nga bëgg ku nekk. jëf ji dafa dafa am ngoog yoonu murid li ñuy laajte di ko def ci jumaay tubaa gi. Mhm. njabootu sëñ Tuubaa gi kese kese mën nañ ko joxe ci benn fan mu mat sëkk. dëgg la waaye lan moo waral mun Muntaxa naan na ñëf na si ñëpp barkelu. bëgg nit ñi ñëpp ñëpp. Mhm. tijaan gi da ciy barkelu laayeen gi barkelu ñaseen gi mburit gi ñëppay barkelu. ku nekk am ci yiw ku ne am ci yiw. parce que yërmande ëllëg gi la bëgg ñëpp bokku ci. waaye bu ne woo woo njabootu sëñ Tuubaa gi rek ay rakkam dong mhm. ne damaa bëgg lii bu ci alalul mbindeef dugg te boobaa day mot ci bis ba boobaa lay gën a gaaw sax mhm. boobaa lay gën a gaaw de kon nag maanaam ki lay dab ci mbedd mhm. nan la addiyee sëñ Tuubaa wala addiyee barkelu ci kafe gi sa bopp dalaa bëgg a dimbali ñaar fukk ñu boole ko ca li ñuy jëndee suukar ñu fekk nit ku dox ba dog bëgg kaa fekk si yoon mu leer ka ni ci yoon bi la nar dogee te du yor lu mu ndogoo ñu xelli kaas café jox ko ko yow xam nga est-ce que xam nga ëllëg xam xaj na ca. Hmm? non macha allah li nga wax ku la yóbbu àjjana ci ñaar fukk nag loo koy waxati. Mhm. non li nga li nga wax dama dama koy dëggal ah, parce que daaw daaw am na fu ma demoon HLM Grand Yoff. Mhm. doog fekk ma ci yoon bi. Mhm. waaye daanaka bi may dugg suñu kër sama biir fees na. après dama santaat yàlla ni Sénégal tamit réew la boo xamante ni. réew bu extraordinaire la ci domaine boobu par exemple yow boo génnee si weeru koor too jaaxle parce que daf euh, euh, euh, weer bi période bi seen période la. Mhm. instant bi cant yi day xaw a bari si yéen récupération bi day manqué nan nga xëy dundee jamono ñu toll nii cant yi. waaw metti na. mais namoon ngeen namoon ngeen ko nag. cant yi ndax ak tëju bu yàgg. namoon namoon nañ ko nag mais ñun nag xam nga tëju terew ñoo cant. Mhm. tëju terew ñoo cant ndax cant gi moom du ci baasee dong. Mhm. waaw loolu moom dama bëgg nit ñi xam ko nag ak baay Fall fu mu tokk day tudd yàlla. tudd yàlla xëy na kay. nam namoon nañ ko ci niñ ko daan defee ak soppe yi ñu toog ñu leen di bégal ci sëriñ bi. Mhm. waaw ñun bu ñu tojoo sax dañuy sànq laa lay wax ne la dañoo amoon limu 24000 bu ñu doon def démb ci guddi gi. Mhm. xam nga démb jàngiwuma. Mhm. waaye maa ngi woon ci kurus gi. ñu amoon limu 24000 bu ñu doon def. ak sama waa kër. kon donc ñun ñu ngi cant. kon même bu ñu génnul ñun même bu ñu newul ci baas yi ñu ngi cant ci biir kër yi. donc moom. Euh, namm gi moom li ñu ci nam mooy namm public bi rek béggandoo ko ak public bi parce que tëju bi it euh, gënaluñu. Mm-hmm. gënalul tamit ñi nga xam ne ñoom. ñooy tëju ñooy ñooy ñooy tëju. Mm-hmm. waaw comme nag tëju boo xamante ne moom dafa dafa jóge ci loxoy nguur. mënoo mm-hmm. ci dara parce que bu nguur ne dañuy tëj dëkk bi mënoo ñëw ne da ngay baas sa baas ne da ngay cant bu baax da ngay tàng da ngay tooñ. waaw te comme xalif général des mourides ñun ci moom lañ tënku. muy ndigal li mënuñoo wàcc ndigal li. moo tax nag tëju mi nag metti woon na lool ak euh, programme yi nga xam ne ñoo ngi ci jamono yi manque am nañ problème de récupération ñooyee nag jaayante rek parce que ñoo ko ñoo ko siñeex sëriñ bi mm-hmm. waaw buñ euh, koy def tamit ba bàq nii di wadd di ci cant gi mm-hmm. dañ koy jéngu rek <laughs> d'accord alors ndax mën nañ xaar soit single bi ñëw wala album wala maxi wala dara loo xam day ñëw ci ci Aliou Afia waaw yëf yaa ngi ñëw de du ma ne. gars yi namm nañ la quoi gars yi namm nañ single yi. maa leen raw xam nga surtout mélodie bi bi bi bi dégage sa sa morceau yi macha allah. <laughs> gars yi dañu namm loolu Cheikh Ibra Fall bi nga bi nga bi nga bàkk macha allah war na mat ay ay 5 ans 6 ans jëm 7 waaw xam naa ci fin bi di ñu si ñëwal. waaw mais euh, single bu war a ñëw. loo ciy wax. waaw single gi nag ñu ngi koy waaj. Mhm. te yeneen ak yeneen ak ñëw. mais doo ñu may exclusivité bi ñun waa Dakar nag. Hmm? si <laughs> émission gi si xam nga xam nga mos naa ko wax ci sama damaa bàyyi di bind lu bees di ko wéy ci émission. mais gars yi gars yi lañ koy sàcc. Ah, ah waaw. mais Baye Fall lu muy doyee di sàcc ah, mais nag xam nga yëf moom liñ naan dafa yoon bee saturé. Mm-hmm. te ku ne bëgg ngaa fës. Mm-hmm. imaginel Aliou Afia tëju këram def ay répétition bay waa ji génnee. Ah, surtout bëgg lu neex soppe yi tax mu toog ci émission bi wax ko xëy dégg kenn génne ko. kenn yow boo ko génnee après dañ naan ah sa waay mm-hmm. dafa mel ni daa laal. te kon. man damay bëgg lu may lu may lu may kii rek moom mu doon surprise ci nit ñi. surprise ci waaw mu doon mu doon surprise ci nit ñi daal. Mhm. d' accord alors ba léegi yéen ci seen eh, émission gisee as gisee ak ngeen ci ànd ak Ouzin li ma sol nii nag Médoune création moom moo ko moom moo ko def benn jeune boo xamante ne macha allah dafa mën lu muy def nekk fële ca Sicap Mbao numéro téléphone bi mi ngi noonu di ngeen ko gis si baawu écran bi. alors Aliou. bu ñu mhm. gënee avancer un peu si waxtaan bi ñu bari dañ leen nduróole ak Ndiogou Afia. Mm-hmm. loolu suñu borom moo koy def. dëgg la eh, da ngeen niroo physique xëy na xeesaay xaw na xaw xaw yaa ko xaw a gën a xees tuuti eh, Ndiogou kii mm-hmm. Ndiogou baal ma Aliou moo la gën a xees tuuti. non moo gën a <laughs> léegi yéen ñaar sa moom mën nga si wax tuuti. waaw non <clears throat> su ma digganteeg moom nag alhamdulilah ginnaaw bi ñu bokkee Serigne Touba. Mm-hmm. Euh, ku baax la parce que lu baax laa xam ci moom. Baye Fall la muy liggéeyal Serigne Touba di liggéeyal Serigne Afia Mbacke Fallilou. maa ngi koy ñaanal lépp lu mu sóobu ci kër Serigne Afia Fallilou yàlla na ko àggale ci sagoom mm-hmm. sunu gisee nag amaana bariwul ndax xëy na dëkk dëkkuwaay sorante na mm-hmm. ndax moo nga ba Medina man maa ngi an maris mm-hmm. te it euh, ñoo bokk sëriñ waaye bokk kuréel bi nga xam ne fa la ñuy liggéeyee amaana sunu sunu gisante ci màggal Touba lay doon wala ñu daje cant yu mel noonu mooy waral ñuy daje waaw donc nag comme moom it bu ngi ci waar maa ngi ci waar moo tax suñu gisee mënta bari mm-hmm. mais nag euh, macha allah mu ngi mu ñuy bégalit mm-hmm. <laughs> mais boo leen àndoon liggéey def benn morso par exemple loolu lu lu nar a yëngal àddina la macha allah parce que yéen ñaar seen tonalité voix xaw na wuute tuuti. Mm-hmm. Euh, peut-être nduróo ngeen physiquement nii mais xaw na wuute tuuti baat mais yéen a xaw wuute sax direction ba leen di waaye parfois. bu ma dégloo man si si li am si. si côté déglu yéen ñaar boo leen àndoon def benn morceau. maam Cheikh Ibrahima Fall yéen ñaar ngeen ànd way benn morso mhm. loolu gisoo nuñ lu lu am solo la daal. waaw loolu mën naa nekk waaye xam nga ñun dañoo tëngu ci ndigal. Mhm. loolu bu sëriñ bi joxee ndigal bi rek dañ koy def. Mhm. waaw loolu moom <clears throat> buñ ko defee. bu sëriñ bi joxoon ndigal pare nga yow. non ñun yaay yow ndigal amul waaj ndigal bu jugee pare naax pare moom amu ci. amul pare ku ñu jox ndigal nga naan pare googu mën ngaa génn yoon murid moom. <laughs> dëgg la <laughs> loolu bu ko sëñ bi bëggoon tey. Mhm. woo ko téléphone woo ma téléphone. Mhm. tey dañuy daje maax moom. Mhm. defar ko tey dugg studio tey. toog xaar ba fajar mu ñu mixé ñu yóbbul ko sëñ bi. bu ko sëñ bi bëggoon tey. woote na damaa bëgg ngeen programme lu bees tàkk ci maam Cheikh Ibra. tey dañuy gisee léegi léegi léegi togg air bi mu ñor. ñu dem studio ah, mu jaaral ñu ko fa nekk ñu jënd sa journée ndax ndigalu sëriñ bi defar morceau bi toog xaar ba fajar kii mixé mixé ñu fay ko yóbbul ko sëñ bi ndigalu sëñ baara waaj amu ca mm-hmm. waaw déedéet waaw loolu loolu loolu loolu dina dina dina dina am solo trop trop xam naa du ñàkk njoogu mi ngi koy mu ngi koy dina ko dina seetaan vidéo bii nii mm-hmm. euh, voilà dina te xam nañ tamit ku ku la apprécier la ku moom ku respecté nit la comme yow ni nga respect ni nga ko respecté mm-hmm. macha allah di la am solo alors bu ñu gënee avancé tuuti ñu waxtaan ci actualité loo xamante ne xaw na laa tuuti actualité ba léegi sa actualité boobu. ñu ngi ci sa diggante ak xaas. Mm-hmm. xam nañ ni ko jege nga macha allah. Mm-hmm. Euh, sa sa sëriñ la sa xarit la. Mm-hmm. boo ñuy wax seen diggante ñaan loo ñuy wax. waaw donc li ma ci wax mooy di ko ñaanal tawféex. te di ko masulu it ci coow li. ndax coow moom day dal ku ne. te nit moom boo nekkee ci àddina. di yëngu ci benn mbir. ci la la sunu borom di nattu. nit ku nekk ci li nga nekk ci la suñu borom di nattu ci wàllu faj la nekk ci wàllu ñaan ci la ko suñu borom nattu coow fekk ko ci. Hmm. donc moom moom moom sama digganteex moom it euh, àddina xam nañ ko jarul ma hmm. ci nekk di di di wax leen. Hmm. donc ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko tawféex coow li nag ñu ngi koy dégg waaye xam nga àddina moom am na yoo xamante ne boo ci déggee doo ca wax. ndax comme xam naa ni mu ngi yëngu ci wàllu faj te man dama naan fajam gi. <clears throat> lu ci bëri xew na sama kanam lu ci bëri xew na sama kanam donc am na loo xamante ne nee na nit nag soo ko jegee mënoo hmm. wax ci moom dara waaye boo ko soree it mënoo wax ci moom dara ndax boo ko jegee loo wax ci moom dañ naan li nga ko jegee tax boo ko soree li nga wax ci moom dañ naan la nga ko soree tax hmm. te comme c'est pas la première fois may wax ci moom ci samay interview donc loo waxati rek dañ naan la mu nekk am moom a tax te fekk loolu wute na ak li fii ñi di xalaat hmm. mais attaqué bi nga nit ñi di ko attaqué naan li muy def dafa yomb ñi naan mën naa ko ku nekk di indi ay affaire mbir yi muy def noonu mm-hmm. bon sànq si biir wax bi ñu déggee fi nga waxee mooy am na yu bëri yoo xamante ni fekkee nga ko mm-hmm. mais attaqué bi ko nit ñi di attaqué ko gisee ah nit ñi moom xam nga ku ci nekk ak la ngay fa ngay xalaatee ak fa mm-hmm. ngay gisee attaque biñ ko man affaire yi sax daanaka ko yéex naa ko yëg daanaka xew naa yi fan may doog a yëg coow li comme man du ma faral di dugg ci réseaux sociaux yi di seetaan lu bari <clears throat> ndax man moom damay jàpp ba écran moom li ma ciy toog bariwul. Mhm. voilà mais euh, nit ñi moom attaque bi ñu koy attaque xëy na loolu ñoom la ci seen cadre xam mhm. ñoom la ci seen cadre parce que boo xoolee ñi si wax ay cadre ay ay sëriñ yu mel ni moom ñoo ciy wax. Mhm. donc ñoom la ci seen seen cadre. xam-xam la am nga loo xamante ni man sama xam-xam àggu fa. man mënuma la cee leeral dara man fi sama xam-xam yi laa li yem laa la mën a yem de waaw. donc ñoom nag li tax ñu koy attaqué ñoom ñoo xam li tax ñu koy attaqué mais moom it génn na ne euh, bu ko bu dul woon liñ ko wax dina génn leeral li ñuy wax wan leen ni lii ñuy wax lu wér la kon nag comme moom it dafa tënku ci ay kàddu yoo xamante ne nit ku nekk am nga kóorus ci sa àddina ba bu la ñaanee nga bàyyi donc looy euh, dañ ko koy nangul mhm. Mhm. te it man li may wax mooy euh, Sénégal am na loo xamante ne jaru ko réew mi ñoo ko bokk parce que bu dara xewee. bu dara xewee ni ko nit ñi di di di di favoriser. Mm-hmm. dafa yéeme daal waaw ah, yéeme na lool. Mm-hmm. mais comme wàllu xam-xam la. Mm-hmm. te man euh, sama xam-xam jotewul foofu. donc moo tax mënuma ci sori. mais moom nee na dafay dafay porte plainte loolu lan nga koy digal est-ce que jar na porte plainte quand même. non plainte bi muy plainte tamit xaw ma li waral plainte bi. te comme xaw ma la moo waral plainte bi. Mm. donc mënuma cee sori encore. bu mm. boo bu doon leer na ma leen lii a tax muy plainte. Mm. donc dinaa mën a xam ni fii ak lii ak lii ak lii la. mais plainte bi euh, nii nga ko déggee. nii laa ko déggee mais xamawuma exact xaw ma sax ñan lay plainte. parce que wax dëgg yàlla xaw ma ñan lay plainte xaw ma tamit lan moo tax mu leen di plainte. Mhm. Mhm. mën nga ñu may tuuti si Cheikh Ibrahima Fall man way boobu man daf may daf may daf may daaneel man personnellement ak sama caméraman bii nii tumaani <laughs> doo ñu si may tuuti rek. Baay Fall baanu digal Fall Fall yaanu digal Fall namay dooyee ndaabam Fall ndaabal Fall. Ibra Faal yaa wane Bamba Ibra Faal yaa wone Bamba ki nit ba tax mbër feeñoon na may duye ndaabam faal ay faal ba ma digal faal faal yaa nu digal <laughs> faal na may duye ndaabam faal Cheikh Ibra Faal yaa wone Bamba Ibra Faal yaa wane Bamba ki nit ba tax mbër feeñoon damay duyee oh, allah ah, Cheikh Ibra Faal euh, yaa wane Bamba ce sont les belles paroles de Aliou Afia macha allah di koo xamante ni baat bi euh, bu fu mu fël rek nga nga kontaan dèjà baatam rek dafa am mélodie ah. baatam rek ba leen déggoo baat bi rek déjà mélodie la ah donc euh, ñi xam musique xam nañ fi may fi may waxee en tout cas alors xam nga ñi ngi si ñi ngi si catal émission bi ndax xam mm-hmm. nañ instant bi da war a da nga a génn am si yeneen mbir yoo xamante ni war nga war nga fa nekk mm-hmm. donc lan nga mën a wax sa fan si surtout waa Pikine mm-hmm. ah koñu Afia foofu sa gox la lan ngay wax déjà ci koñu Afia waaw waa Pikine Icotaf koñu Serigne Afia Mbacke foofu koñ bi koñ bi yàlla barkee la ngi ndax euh, fii laa njëkk a gisee sama maam Serigne Touba. moo foofu yàlla barkeel la. Mm-hmm. ci suñuy cant annuel yi ñu doon def 7 juin jour bi nga xam ne ci la sëñ fàll ubbi woon jumaay Touba. Mm-hmm. sëñ bi jàppaloon ñu si annuel ñu koy def chaque année. am ci at boo xamante ni dañoo jékki-jékki ci biir cant gi courant yi sote tëf. Mm-hmm. lampi tàq ñu toog benn diir lampi tàq ñu gis ni sëñ bi mel lu doon tuur xéwal mu jékki mu mu jékki nañu fii laa nguléet ma gis sama maam Serigne Touba tey. nit ci baas bi. loolu loolu kéemtaan la. kon nag maa ngi leen di bu baax di jël ziar gi di ko teg sama loxoy jëwrin jëwrin Ndiouga Guèye jëwrin Tasso Chixaar muy kuréel bi nga xam ne falaa ne bu jàlleel ma nuyoo gi ñëpp ci mbokk taalibe yi rawatina waa Pikine mm-hmm. parce que Pikine moom euh, Pikine sama Pikinu bopp la ndax ndeysaan dañ maa dañ ma yàgg gunge. Mm-hmm. Pikine dañ ma dañ maa gunge ba ma ba ma. dañ maa lépp doore non fa la mm-hmm. dañ ma puus ba ma tàq. ma daw ñu ne ma dañuy langaamu ànd ak yow. donc maa ngi leen di jox mention spéciale. di leen ñaanal sunu borom defal leen tawféex ci weeru koor gi. yokk seen mbir ba ñu yëg ko. Mm-hmm. di wax soppee nag nañ xaar. Euh, yëf yi nag bëggoon naa leen ko jox sax ci koor gi mais xam naa dama koy tënk. bañ jàll koor gi rek ma génnee ko. incha allah ndax gars yi mën a am gën a gën gën a mën am jot bi. Mhm. waaw donc di nuyu aussi sama manager. Mhm. Pape di ko ziare. di ko masalu coono ndax moom it fan yi moom li muy daj metti na. Mhm. <laughs> ndax xam nga manager Baye Fall daa metti rawatina ci biir koor. ci biir koor waaw moom it maa ngi koy ñaanal bu baax baax baax suñu borom yokk ay mbiram. loolu ngay tëjee. lan ngay tëjee. ah wala tëj nga ba pare. ah tëj gi kay xanaa ñu. dellu santati rek mm. ndaxte di dellu sant it waa baabul Babul Mouridina groupe bi mm. Mm. ndaxte ñoom it euh, seen i nelaw bareetul di leen ñaanal di ñaanal sama doom yi njaboot gi maa ngi leen di ñaanal bu baax sama papa fa mu nekk yàlla na yàlla yokk ay leeram di ñaanal sama mag ñi ñi nga xam ne ñu nga extérieur sunu borom defal leen teraanga fa ñu nekk di ñaanal sunu soxna yi ci kër gi di jël nuyoo ko di ko teg sama loxoy soxna mu jiital mu séddale leen ko <laughs> waaw mu séddale ko yeneen soxna yi ci kër gi donc di jël nuyoo sama famille di ko teg ci loxoy taaw Samba mu ñaanal mu mu jàllale ma ko ñëpp donc encore une fois di remercier waa Dakar Net di leen ñaanal tawféex di leen wax ni euh, fu audiovisuel àgg yàlla ngeen ko romb ndaxte lii yombul déplacé wu ñëw ba ci kër nit ngir wax def waxtaan ak moom mm. waaw donc lu kawe la ci man nag mm. waaw lu kawee la ci man di leen wax ni désormais lu ma ti yéen a ngi ci biir te it lu ma xewleeti yéen a ngi ci biir donc maa ngi leen di ñaanal euh, yokk ba yëg ko mm. yàlla ñu fa am jàmm <laughs> merci beaucoup ça a été un plaisir quand même de vous servir comme ni ñu koy faral di defee saa su ne di topp actualité na actualité bi sax wax naa leen ni moo ñu indi fii nii ndax euh, ki nga xamante ni moom mooy Aliou Aliou Afia ndaanaan la ci domaine am macha allah Ouzin ngeen doon àndal ci seen émission gisee ak euh, wax naa leen sànq ni euh, Médoune création moom moo jaar fii nekk fële ci Sicap Mbao Toumani moom moo nekk si caméra bi sama sama doomu ndey sama frère sama lépp ah gars merci beaucoup jaajëf.